dal leen ak jàmm ci AGT bi leen di jox xibaar yi wér te leen jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp mi AGT news. dafa mel ni fu mu nekk nii mbënn mi am ci validation candidature bu Bassirou Diomaye fay ba léegi dafay def ay effet mu mel ni nag bu ñu amul dara lu ñu def dañuy xëy di kàccu suba bu guddi wala sax ñuy manipuler askan wi jaarale ko nag ci ëttu tasukaay xibaar yi nga xam ne ñoom nañu jàppal tànk su ko defee ñoom nañuy daal di siwal mel ni nag ñoo def actualité bés bi fi ci réewum Sénégal matt leen bu baax a baax seeni wey te toog di xaar ndax li ñuy wàcc du ngeen ko mës a xam togg gi nga xam ne njiit li mu ngi koy togg jamono ji mu ngay baax toog leen ci table bi toog di xaar mel ni coggu maan niñ ko doon defee ca tel ga ak léegi dinañu leen servir waaye nag ndaxteel gu rëy ngeen di am ca la ngeen di gis ci kaw table bi jarul ngeen di sonal seen bopp du ngeen ci xam dara fi mu nekk nii ngelawal rupture moo wutali avenue Rome xam ngeen ko bu baax a baax xam nañu ko waaye fi ngeen matt du ngeen ko yàbbi ngeen ne nañu ñaax ñi nga xam ne ñoo ñu wax ci enjeu yi nga xam ne moo am ci élection présidentielle yi ñu dëgmal ñooñu dañ leen war a gunge ñu dem jëli ji seen i carte électeur waaye itam ñu dëkk di wax ci seen i nopp baat bi nga xam ne mooy dagg seeni i xol Diomaye mooy Sonko. loolu dong la ñu Ousmane Sonko daal sant jaarale ko ci hashtag Sonko mooy Diomaye hashtag Diomaye mooy Sonko. AGT News. Merci de faire confiance à votre chaîne préférée AGT News. Apparemment, le tsunami de la validation de la candidature de Bassirou Diomaye Faye produit encore des effets de l'autre bord. Et comme toujours, quand ils n'ont plus de matière, et se trouve devant un vide, bonjour, les mensonges et autres tentatives de manipulation à travers leur canard déchaîné où ils font le point de l'actu quotidien. Rangez encore vos ongles car vous ne saurez jamais ce que l'on vous prépare. La cuisine du chef tourne à plein régime. Mettez-vous à table, prenez votre mal en patience et comme depuis le début, vous serez servi en surprise. Cela vous tracasse déjà. Le vent de la rupture souffle fort en direction de l'avenue Rome. Vous le savez, nous le savons. Mais vous ne lâchez pas, sensibilisons notre entourage sur les enjeux de ces élections et assistons-les à aller retirer leurs cartes et répétons à la phrase qui broie leurs estomacs. Jomai moins Sonko, c'est la seule chose qu'on nous demande de faire. Hashtag Sonko moins Jomai, hashtag Jomai moins Sonko. AGT News.